bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin almuti wa ala alihi wa sahbihi wa barik li bi jaahi fi nutqi wa fi xati wajcal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ci dajawaat ak yéen di ubbee suñuy kàddu ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu yàgg fi te wér te ñaanal Cheikh Bass ibnu Cheikh Ibrahim borom dëgëral ko ba mu mottali yéenam yépp ci kaw njabootu borom Daaru Muxti di bàkk ak a kañ Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuulillaahi moom mi nga xamante ne moo ne woon faja anil alimu wal xabiru bi ma bihi faaraxani tadbiru sama mbir sama borom dina ko doxal dama ci bett xéewal yoo xamante ne du aajo wa programme du aajo propagande fa tabaarakallah muy ñëw nag ci benn phénomène boo xamante ne phénomène la boo xamante ne jamono yëpp ñoo ko doon dund les sacrifices euh, humains maanaam puune yin doon jàpp xale yin doon rey loolu nag may wax ñi ñu seetaan deme naa ka waa asraar ñi jëfandikoo nuraan ñoom kàccat leen ci ñi jëfandikoo alquran ndax ñun li ñuy jëfandikoo tur yàlla la ma wama wama yasha an dikri rahmaani nu la ko cheytaanan wala waqarin képp koo xamante ne da nga fee bàyyi nag tudd yàlla yàlla dina la boole ak cheytaane cheytaane nekk sa kilifa ànd ak yow xëy na ñooña ca loola lañu nekk ñun nag lépp lu ñuy def euh, yàllaa ci jiitu yonent bi jiitu njàngale mag ñi moo jiitu xam-xam fu moo jiitu ba tax na bëgg daray àddina du tax ñu def dara luy tax ñu ma yàlla ndax liggéey liggéeykat ruu da cee am solo ndax ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu sa ruu amee nu mel dina waral soo bëggee gis dara mu yomb la dina waral lu bari soo ko leerloo ci sa borom mu leeral la ko te jëfandikoo yu ñuul yi day yàq yooyu ba tax na loolu moom dara jër ko ci àddina waaye nag euh, loolu nekk xam nga tamit àdduna bi lislaam bi mu jógee arab yi ba ni mu agsee fii ci senegal day colporter en même temps tradition ak aada réew yi nga xamante ne moom lay traversé fii ci Afrique noire sacrifice ak wàllu njabar loolu dafee sax ba nga xamante ne bi lislaam ñëwee it ala kulli xaal dina ci dina ko xaw xajamal xam na góor gu baax goo xam ne daan wax ne suñu réew mi diine du fi daan aada diine du fi daan aada mukk ba tax na ñi def sacrifice euh, ci wàllu nit xay na lañ ci jublu ñoom ñoo ko xam xam su ma ko xamoon nit la ma ci xam it du ma ko wax ndax la tax du ma ko wax mooy ma njariñ te it man nga koy wax ngir leeral am keneen ku ko xemmeem ba tam ba dem wuti ko waaye daal loolu ànd ak seytaane la euh, euh, te na ko yàlla waxe boo toppee ay ba mu jeex wa man yaxsha an dikri rahman nuqayyid lahu seytaan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduunahum an sabil la yàlla wax seytaane di di toppale yoonu yàlla wu jub bi waaye su ko defee nag ku jóge ci yoonu yàlla wu jub bi dem ci ñàll yi te it uh, ku dem ci ñàll yi moom sawar rek ngay mujj sawar rek ngay mujj uh, wala tattabi'u subula dégg ngeen sax yàlla noonu la ko wax ci alquran maanaam uh, wa anna hada siraati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula sama sama ngir maa ngi nii leer naññi jaar leen ci te bu leen jaar ci ñàll yi ginnaaw nag euh, seytaan di di jël ci yoonu yàlla bi leen ci ñal yi leen di jëm ñal yi nag ku ci jaar loo gis yaw ñi nga xamante ne daal ñoo koy jëfandikoo mooy la alquran doon wax naan wa innahu kaana rijalu min al ins yahuzuuna bi rijali min al jin waaye nag fazaduhum illa raqa fazaduhum raqa maanaam ñi nga xamante ne dañoo nekk ay nit ñoo xamante ne dañuy chercher protection wala ñuy pactiser avec le diable du leen jural dul ak suufe ba tax na loolu ñoo ngi ci soññ jullit ñëpp ñu xam ne suñuy aajo yàlla mën na ko faj ci lu dul ñuy def recours ci lu xaram ndax maa faratna fil kitaabi min shay alxuraan ji ñu yàlla jox yàlla bàyyiwu ci dara te maa ngi lay faral di leeral ni nga xamante ne noonu la ci nit ñi wutee ak ni ci ni ñu koy jëfandikoo mi ngi mel ne rek gerte wàng moom su ñëwee da koy jub naan diw ko dem nit ki bu ñëwee da koy def dege def ci maafe wala mu def ci ngalax wala dara waaye suñ ko yóbboo ci machine bi moom mën na cee génn diw man cee génne ràkkal mais en même temps xotti gerte gi nga xamante ne moo ko amoon sax mën na cee créer énergie alxuraan tamit maa far naa fi kitaab maa far naa fi kitaab min shay lu wér la waaye nit ku nekk ak yow sa degré ba nga ci mën a jariñoo kenn ku nekk am na loo mës a defal yàlla loo xamante ne su la ko yàlla fayee say ajo mën naa faju del ñaan yàlla di def tawasul ci la waaye di def tawasul ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tawassalu bi jaahi fi inna jaahi indallahi adim ñu wàcce yonent bi wàcc waayam te ñaan yàlla muy faj suñu aajo di ko jaare ci moom ndax ñun ñii nit ñiy fekk si defuñu lu dul loolu mooy maanaam woo yàlla ci turam yu mag yi def tawasul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéem a sellal ruux jaarale ko ci xasida Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasulillah ci loolu rek lañ nekk. xam nga xa bu ma nee la asraar man asraarul quraan laay wax asraarul quraan maanaam ci ay xuruf la tege ndax alxuraan ay xaraf la xaatim yi ay chiffre la te ñun suñu ay langue africaine kenn bundu ci benn. ce qui veut dire bu ñu duggantee rek mooy am na tradition bu ñëw épouser suñu tradition wala am na tradition boo xamante maanaam islam ñëw na sunu sunu sunu cosaani cedd yi fi nekkoon infiltré ko. suuf ak garab yi dafa am lu muy def ci nit parce que dafa am ay éléments yu muy dégage yu tudd yu tudd ay phytosande phytosande yooyu am ay effets yu positif yu muy def ci dooma aadama stress yi la bu ñu jëlee xob sàngam eh, xas sàngam mën naa créer nangam ak nangam ci nit yàlla duy na ca la ko soob ci ay secret problème bi kay walaakin laa taqoon mooy mooy yéen kay yéen a ko mën a gudd a a ko mën a gudd a dégg waaye ma nga ca loolu mooy dégg dëgg wax ci mu dem Google boo tàppee fitu fitu sand da nga gis lii ma la wax muy effet bi nga xamante ne moom la garab yi ak reen yi ak di am ci nit ni ki noonu it ñu nit suñ ko jëfandikoo ci suñ lii am na effet bu muy def ci nit boo xamante ne soxlawun science di ko prouvé waaye ñu ko jëfandikoo ñoom ñooy ñooy gis résultat yi xam nga doomu aadama yi jamono bi àddina ak alal da leen jaral lu nekk waaye nag dañoo war a bàyyi xel la Sëriñ Tuubaa waxoon man baa nuuram bi duja fa sa yëndëmu képp koo xamante ne jël nga sa leer jënd ko ak lëndëm soo duggee ci bàmmeel da nga ko rëccu kon nag bëgg-bëggi àddina yii doo ak bëgg ndax euh, Cheikh Ibra Fall radiyallahu anhu daraan wax ne ñàkk ko àddina doo ak ñàkk ñàkk dëgg dëgg dëgg mooy dem bisu penc te yóbbaale woo dara kon mm, yaakaar naa ragal ñàkk jërul def yenn yi te li la dal wala li nga bëgg ak lu mu rëy rëy rëy rëy ba nga jàpp ne war ngaa jàdd yoon pour mu mën a régler soo tegoon ci siraatal mustaqim mënees na la koo ñaanal ci alquran nga am ko mënees na koo jaar ci wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum la la wax woo leen ma ku ma woo dinaa la wuyu amul genn ñaan ku yàlla delloo gannaaw léegi nag ñi sama borom baax ñu xam yooni ñaan yi buñ ca jaaree buñ ñaanee bal lay doon aajowul dugg ci ay roq ak def yoo xamante ne da nga ciy am problème ak sa conscience li ñu soxla lépp mi ngi ci alxuraan li ñu soxla lépp mi ngi ci turu yàlla yi li ñu soxla lépp mi ngi ci xasaayit yi mën nañ koo liggéey te doo aajowoo ñuy def lu wóote lu yàq suñu pas-pas wala lu yàq suñu diine wala suñu diine di soxla waaw ni may tëjee rek mooy ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sama borom sàmm ko te aar ko tey invité bokki bi yëpp maanaam ñu delluwaat ci alxuraan ak sunna te te xam ne liñ bëgg mi ngi ci liñ bëgg mi ngi ci turi yàlla yi liñ bëgg mi ngi ci euh, xasaayit sëriñ bi aajo ji nu mu mën di moo xam tawati yaram la moo xam ay gàllankoori àddina la lu mu ci mën doon rek mënees na ko saafara te du ajo woo ñuy dem ci loo xamante ne day xaram wala muy yàqu il suffit ñu dem fi ñu war a dem rek pour sama boroom saafara mbir yi jërëjëf.